permanence ba euh, mu nekk génn boo xam ni gëj nañ ko gis nag li ëpp li ñuy gis daanaka dafay nekk ci résidence am rek toog euh, lu sabab génn boobu tey. waaw xëy na sax dina arrivé que président génn. Mhm. te nit ñi duñ ko yëg doxantu dem fenn dellu si këram euh, démb tey nag li ko yóbbu foofu mooy l' institut libéral. Mhm. benn institut la boo xam ne dañ ko defaroon. am ku ñu ko dénk ci organisation partie bi moo war ko doxal pour ñu war a fa di jàngale libéralisme mais ensuite di fa former xale yi góor ñi ak jigéen ñi ci situation réew mi ci situation adduna bi ci dox dox bi nga xam ne moom la adduna di dox loolu dafa laaj jàng. Mhm. njàngat boobu nag bi ñu defaraatee fi ñu ko def ci sous bi ba installé ko ba pare. ñoom secrétariat boobu dañu soxla woon wax président ne commencé nañ seen liggéey ak mooy ñu am. genre école du parti la. Eh, passé na école du parti parce que école du parti benn affaire la mais ça c'est c'est sur la formation du doctrine du libéralisme lan naka la naka la lan mooy suñu doctrine politique naka la ñuy dundee ñun naka la ñuy xalaate yan principe moo ñuy gouverner loolu mooy suñu mooy. tax ñu ci jàng ko ngeen toll. non du du du jàng ko xam nga jàng moom bés bu nekk la du wees. dëgg la mais jàng day évoluer. Mhm. gisoo suñu sëriñ yi mag yi saa yu njëkkatee kaamilu alxuraan dañu commencé fàttee di ko liir ak di ko tekkiwaat. Mhm. parce que bés bu nekk ñu am ci njàngat bu bees. bés bu nekk ñu gisaat ci yàlla ci beneen façon pour ñu déggewul ak buy passé parce que yàlla ëmb na lépp ci àdduna te day ànd ak jamono. Mhm. donc kuy yor bëgg yore réew. il faut nga ànd ak sa jamono. d'accord donc dafa dugg ci ci ci PDS New Look. ci réorganisation parti bi ni muy doxee. ak new look waaw mën nga ko tuddee new look mais réorganisation la parti nit day dox. Mhm. day changé gis naa ne yéen sax yéen ñu commencé di ubbiwaat di defaraat di peinturaat. ok def yoon waaw noonu la. parce que boo ko deful ñeneen ñi def ko il faut nga jugaat taxaw te formation politique ak formation doctrinale dafa war léegi ci jamono bi ñu toll parce que ku amul xam-xam doo mën a def lenn li. Mhm. waaw mais dama xool pendant pendant des années d'opposition pendant des années au pouvoir tey ngeen bëgg taxaw pour yëkkati loolu loolu moom loolu cest à loolu mu ci. noo non mësul mësul taxaw amoon nañu kër boo xam ne fa lañ ko doon defee dañ ko luyoon mu mag. boo duggee ci cour boobu fi ñu nekkoon boo fa duggee li ngay jëkk a def da ngay gis ay tur yu ñu affiché di nga fa fekk 600 wala 700 personnes ak seen ay tur ñooñu ñoo sampoon parti bi. donc loolu yàggul mhm. mais après les moyen ne sont pas les mêmes ñu traversé situation bi ñu traversé ak difficulté yooyu am depuis 2012 ba léegi ñu daal di taxawaat nag am une organisation bees ñi ñu ko dénk ñoo démarré waat loolu d' accord waaw voilà man de boo gisee ma ma dugal sax baatu new look boobu euh, mooy dama gis PDS boo xam ni dafa bëri ay nit yoo xam ne génn nañ ci ma gisaat beneen réorganisation boo xam ni président Abdoulaye Wade def na ko am ci cër boo xam ni jox na ko ci Karim Wade jox na la ko ci am ñoo xam ni génn nañu leen ci ba ñoom ñu gis ci seen bopp ba créer lu ñuy wax ànd suqali soppi loolu moo tax ma ma abordé noonu ndax da ngeen bëgg tabaxaat PDS bu bees wala da ngeen bëgg a indiwaat leneen lu bees. obligatoirement. il faut ñu def loo xam ne dafay méngoog jamono bi ñuy doxee. est-ce que dañu war a jaay carte comme ni ñu ko daan jaayee est-ce que dañu war a def militant comme ni ñu ko daan defaree ak lan. do doxin bu bees. Euh, mën nga ko. xam nga organisation bu nekk Pape dafa am ñu ci dugg ak nit ci génn loolu gënuma la ko xam. famille yi day am ñuy dugg di génn société yi day am ñuy dugg di génn mais génn nit génn ci société taxul société bi taxaw. ah mais parti nag loolu gënu ci. non noonu lay demee amul benn parti bu amul loolu ci àdduna a pas. Ah, mais mais mën na ci am mais du ci du ci par exemple parti moom li ñu nga xam ne moom lañ ci gën a dégg mooy addition mais pas soustraction. amul amul amul benn organisation sociale. waaw boo amul addition soustraction. amul multiplication amul yàlla noonu la bindee àdduna amul benn fi ñu nekk nii rek. am na ñu fi miinoo nekkatuñ fi mais dafa tere ñuy doxul yéen a ngi pentiraat di tabaxaat di demaat pour wane ne yéen ngi fi ñeneen ñu ngi jëm fenn. ay départ rek laa fay dégg. Euh, non PDS non maa ngi lay seedeel ne jot naa benn document bu ma yónnee tey su président de la ci ay nit yu jóge fi pas nekkuñu fi gëj nañu Sénégal ñëw pour fii. gis naa kenn koo xam ne kii du ma tudd turam mais bu ñu génnee ma wax la ko jege na la lool lool xëy na gisante nga ci fan yi ak moom nekk fi woon double nationalité am nationalité mauritanienne ak sénégalais ak sénégalaise jóge na tugal bu jàkkul ñëw Sénégal pour liggéey si mais bi mu ñëwee 1er janvier 2019 daf man la jox lettre am pour adhérer au parti te pourtant papam député mauritanien la donc am nañ ko. Mhm. les arrivées à ñu ngi ñëw dem bi mu ngi dem donc loolu il faut mu am. dañ koy nangu. d'accord am na. d'accord ni mu amee nag ci kër am ci association am ci football am ci équipe. noonu laa amee ci parti. d'accord d'accord alors modernisation boobu yeesal boobu ak defar bi ndax mën nañ ko defar ak Abdoulaye Wade ak Ajam ak génération par exemple toujours mu bo jiite boppu parti bi est-ce que mën nañu mën nañu defar lu lu lu bees ci lu màgget. non du defar ci lu bees ak lu màgget Pape man bi may tabax kër mag laa woon bi may jënd kër mag laa woon mais sama papa nga woon sama wet moo mën a defal lii defal lii defar lii am naa doom boo xam ne mag la am na jabar am na ay doom dafa taxu mais maa ngi ci këram di ko tax nii la nii la ak nii la. ànd loolu mooy accompagnement dafay mën a nekk nit boo ko yoree da ngay dem di ko won dara mhm. di ko ko won di ko joxoñ mujj gi nag da ngay ànd ak moom ba foofu ngeen di àndi dem ba mu miin ko après nga bàyyi ko mu demal ko moom kenn fi ñu toll nii suñu parti dañu am secrétaire général secrétaire général national amul at bu ñu ko jox at amul at bu ko utal at créer ko ay droit yu bees wala règlement intérieur suñu règlement intérieur moo joxe te gisuma fenn fu ñu ne warul mën a jiite parti bi surtout que li mu ci mën mënuma ko sama morom mënu ko li mu ci yéene man mënuma ko sama morom mënu ko li mu ci def ci doole ak ci alal keneen mënu ko ñun mënuñu ko ñi fi nekkoon ñun ñëpp ak ñun ku ciy def dara ci moom nga jublu ak loo ti am boo yoree maire yi boo nekkee ancien ministre boo yoree xaalis boo ko denceeg boo ko dencul ci moom nga ñëw mu joxe ko waaw man président Doudou Wade loolu jaaxal na ma parce que soo ma waxee nii li mu ci mën kenn mënu ko ci li mu ci yéene kenn yéenewu ko ci man loolu dina ma jaaxal ci parti boo xam ne yàgg ngeen ko ànd yàgg ngeen ko def ak âge am toujours ngeen bëgg a wéeru ci moom toujours ngeen bëgg wax ni moom lañu ñu yaakaar toujours ngeen bëgg a wax ni li mu mënuñu ko mais loolu ba kañ. waaw mais Pape est-ce que ba kañ. Mhm, mhm. est dañuy tere ko yaakaar mag. waa bàyyi leen ñu yaakaar suñu mag ngeen yaakaar seen xale moo gën a ku nekk na yaakaar li nga bëgg nga téye ko ñun ñu téye ci li ñu téye li ñu téye gis nañ ci ñun njariñ mhm. te Sénégal bés bu nekk ñu won ñu ne gis nañ ci njariñ ñaata nit ñoo nekkoon ci Ablaye Wade mhm. génn ut siwaat ko ñaata nit ñoo nekk nekkul woon ak Ablaye Wade ut si ko tey ñaata nit ñoo ko xarab ñëw ne ko dañu juum mhm. ba tey ba tey ba tey ba tey ci communiqué bu ñu génn baalu ko àq mais est-ce que daf leen dàq dafa xam ne dafa bokkul ñoom gis-gis. am na lu muy gis te ñoom gisuñu ko wala fi dañuy wax ne xale dina yéeg du gis mag toog fi mu toog gis lu sori nañ ñu bàyyeeg suñu mag. ñu dund ak la sagesse africaine mag loolu lay jariñ. Mhm. d'accord ko am sa ko am papa nag ak sa maam. ak sa kilifa gu mag. man mhm. nga ko sànni mbalit. Mhm. mais ñun suñu bos téye nañ ko boot ko. non am nañu ñu dul sànni sax mbalit. waaw mais dañ koy yóbbu mu nopp noppalu. ñu am leneen lu ñuy dégg seq ak moom lu dul di ko jiital ci lenn loo xam ne politique la mais pas sànni mbalit. mais xam nga politique mooy. pas pas sànni mbalit kenn waxula sànni mbalit. am ah, na mais xam nga boo bëggee waxee noonu. waaw waaw xam nga du ma dugg ci débat boobu. ok xam nga mag. Mhm. dañ koy jariñoo. Mhm. xam nga Abdoulaye de gisoo ko fen mhm. te mais mu ñuy jariñ. bés bu nekk ñu jàng ci moom loo xam ne lii ay la yéwén jàpp ñu ko woon wala dañ ci juum. nga xam ne seedal sama borom du waxuma damay wax saa yu ma toogee moom gis doxalin boo xam ne bii euh, wala lu ma naroon def xam na au fait sagesse mooy tax may wax. Mhm. muy wax ma daal di koy jël fas ko sama la fu pendal bu ëllëgee ma dox ko mhm. mag. dañ koy sàmm. d'accord dañ koy jariñ d'accord d'accord mais est-ce que aussi du indi blocage vraiment ci champ politique bi parce que ak âge am kenn mënatul wax dara jëmale ko ko lu wax xam nga dafay nekk gros est-ce que du du indi jafe-jafe ci ci ci vraiment ci ci ci ci ci wàllu politique ci Sénégal parce que ak position bi mu nekk jiite parti politique. li nga mën a wax Macky Sall mënatuloo ko ko wax li nga mën a wax Ousmane Sonko mënatuloo ko ko wax est-ce que loolu aussi du indi du indi problème lu mujj li dégg nañ li jóge ci kilifa bu Y'en a marre indi na coow indi na toole est-ce que façon yooyu du indi jafe-jafe ak ak moom. xam nga loolu man jàpp moom xam nga lu ma jàpp gis na organisation xale yooyu nga xam ne lu nekk lañuy def ci Ablaye contre Ablaye Wade. Mhm. ñu ñëw toog toog ak moom ne dañ lay laaj si xalaat ne def nañu lu nekk pour jëlee la fi. xeex nañ la façon xeex bu nekk. lu nekk wax nañ la ko. nga muñal ñu ko. ki fi nekk mënuñu ko muñal. te jàpp nañ ne bu ñu yëgoon lii ñu defoon ni duñ ko def. moo tax léegi ñu lay laaj fan la ñuy aw. mais loolu jar na ko ñun loolu reconnaissance boobu ak dellu gannaaw boobu nga xam ne nit ñi dellu nañ ko xool ko beneen bët. muy bët boo xam ne bi bët bu ñu teg ni bu ñu teg la amul ko ko waxul. Mm-hmm. am na ñoo xam ne ñi ay candidats lañu ñu aux élections dañu ne Macky Sall euh, Idriss Seck wax na fi ne Macky Sall euh, li fi mu waroon teg Abdoulaye teg ko fa donc ñoom ñëpp bu ñu àndee teg ko ci ñun dañu koy sant yàlla fàtte lu ñaaw lañu ko waxoon. Mm-hmm. fàtte ko d'accord. mais ci li ma wax est-ce que du nekk nekkul koo xam ne nag indi na vraiment blocage euh, ci ci ci ci wàllu politique. ci blocage fan non li ma bëgg a wax mooy. non du bu parti. su gisee suñu parti ñu ngi koy tegaat ci yoon ñun ñu koy dund tey ñu ngi yëg ne mu ngi teguwaat ci yoon ñun ñu ngi koy yëg ñeneen ñi nag ñoom ak seen parti bu ñu dàppee ne ñoom loolu moom dafa ñuy sonal ñun loolu lu ñu du dëgg. Hmm. nit mënul xam li mu reere bëgg ba xam li keneen reere ñun lii doy nañu. d'accord ok euh, président Doudou Wade bari na nag loo xam ne ñu bari duñ ñu ci mën a tontu.